Mm-hmm. ndaje bi tey ndaje bi. Mm-hmm. solo ndaje bi tey. mu ne wax rek gis nañ ñun ñoo ko gisandoo dañ doon def euh, remise matériel mais fourniture scolaire donc euh, mu nekk loo xamante ni lu nit ñi soxla la donte ni doyul sax donte ni nit ñi tam loolu xañ na dafa nekk rek loo xamante ni mënuñu ko bañ a def ndax lu nu lu nekk ci budget la euh, te mu jëm ci ñoom mais. li nu gën a lépp mooy lu ñu tënk rek ci waxtaan pour bëgg a daje ak ñoom na gën a gën a waxtaan ñoom gën ko améliorer parce que loolu buñ ci waxtaan ni war nañ ko moo def parce que lépp it génnul éducation donc comme génnul éducation nag war nañu mën a fexe ba waxtaan ak l' inspecteur ak les directeurs de école xool parce que éducation nekk na loo xamante ni euh, damay yaakaar ni sax ñun africain dañ ko xaw a boo bon ci profité di gërëm enseignants yi parce que nag boo demee situation yi nekk di ci ay xale ba am les meilleurs résultat boo xoolee ay cadre di fa génn lu nekk di fa génn te commencé par école yi yoo xamante ni ba tey président dina école ba ñu doon jàngee wala ay directeur de service ak ay directeur de société fi ñu doon jàngee ba tey amul changement loolu defe naa ne nag euh, nit ñi war nañ cee bàyyi xel état war nañ ci mën bàyyi xel nag pour que améliorer waat éducation bi donc euh, ñun day dans notre commune décidé nañ daal bëgg a benn waxtaan boo xamante ni avec l' inspecteur su amatee dotation yu jëm ak li mairie bi jàppale ñu mën a xool nu ñuy mën a def ba réhabiliter certaines écoles pour que vraiment ndax li ñuy jot ci doléance te dañuy dem ba gisal suñu bopp it xam ne muy dëkk gis benn établissement mille élèves amuñu toilette wala bu ñu amee toilette ci ñaar lay nekk ci mille et quelques élèves nekk fa vraiment dafay xaw a doy moo tax dal ñuy lancer appel pour war a ñëw euh, waxtaan ak jéem a réorganiser waat éducation bi maximum possible comme li ki wax sànq ci affaire coupure d' électricité yi aussi bëgg nañ cee échanger xool donte ni mënuñu ko lépp parce que ay facteurs yi huit cent mille pour jéem cee jàpp euh, suñu kéemtu lay kàttan pour appuyer ci parce que nag facture moom itam vingt deux écoles bon ku ne ñëw trois cent cinq cent suñu doole attanu ko suñu budget attanu ko sax mais loolu lépp itam du tere nag ñu ñu contribuer ci dunu man pour que ñu jéem a régler situation yi loolu aussi itam état ci war a bàyyi xel comme ñu wax association nañ des maires dinañ ko fa porter pour que coupure yi lu mel ni maire yi lu mel ni poste de santé lu mel ni école yi defe naa ni ku bëgg euh, sam réew émerger comme li ñuy wax Sénégal émergence defe naa ni loolu war na bokk ci li loo war a jël en compte pour fexe ba secteur yooyu vraiment warul di am problème mu ndox problème mu courant nga war a mën a xool daal noo leen noo koy mën a subventionné wala noo ciy man ñu nga koy mën a daal amélioré ba dootu am yenn jafe-jafe yi